ale wa maaf ren jom a teeri ngaajoo maaf na maafu xaate loolu mooy final poids lourd ci Ndumbuj 31 mai 2024 final dox diggante Sa Thiès Thiaroye mbaa Sa Thiès Bawol mu ngemboo ngembulu fee Gandia Moundé moo féetee gauche waaw waaw ñuy déglu combat bi ba xam fan lay mujje ñoo ngi bëgge waa Moundé di bëgge waa Thiaroye mbaa waa Bawol nee naa la képp kuy supporter Gandia Mundé aimel ma vidéo bi mbaa ngay supporter Sa Thiès Thiaroye aimel vidéo bi nga partagé ko waa diaspora bi fàttewuñ leen yéen a nga ca biir kuy baaxoo Mbour Tefess di bëggee fansi ko la Mbour waaw gara Issa Duba borom fa ngeen sin bëggee naa ko siyaar naa ko di bëggee Kamou Mbane champion bu mag bi waaye rawatina sang njoor mbaa sang borom ñetti lul yi bege naa ko siyaar naa doomu ndew gabu njool baal waaw laatir fay borom njaay njaay Fatick doomu ndew amin jon bege naa ko siyaar naa di bege gara Ismaïla Njaay waaye di bege Adama waaw waaw borom doomu ndew Seex Jon di bege aussi cey Sali Bakhoum bëgg naa ko borom simal bëgg naa ko siyaar naa Njom Sa Thiès Thiaroye Gadiamoude di bëgg aussi Felwine TV jigéenu Gadiamoude bëgg naa ko siyaar naa aca ñu leen di souhaiter que le meilleur gagne diggante Sa Thiès ak Gandiack nee naa la li combat revanche la Sa Thiès aca nee naa la li combat revanche la Sa Thiès bu Thiaroye moo ko daanoon Sukuta demi-finale ñu dellu siwaat fii ci Ndunguj ñu déglu revanche bi ba xam nan lay demee ndax door dooraat lay doon mbala door fayu waaye ci kanam lay leer Sa Thiès a ngay dox ci kawam waaye Kaja mu ngay bañ waaye Joseph Nianing fàttewuma la yaa nga ca biir di Joof yoog ndax alew kin ke jeg na xaaca di bëggee ancien gloire yi ak les lutteurs en waaye di leen di fàttali aussi le combat de Doudou Sané dimanche allah ñi woy supporteurs yi képp kuy bëggee Khadafi Diof yo kon ñëwal jàpp ci combat bi di leen di fàttali aussi combat Babou Sarr dañ ko mujj a annulé ñu koy ñaanalaat mu amaat beneen combat. ndaxte xale la waaye waa Joof aussi na ngeen ko jàppale bu baax a baax cey waay waaye borom Jomolor Fap Siga bëgg naa ko siyaar naa ko di béggee lay ti seen borom ñaning le grand waaye Mbaye Diouf borom Bicol production bégge naa ko waaye kenn du Saliou Tine borom Soudiane dimle bégge naa ko siyaa naa ko le petit frère de Doumbouya ee eh, 2-0 Sa Thiès daan na Gandia de